waaye dinañ ko loxatu xool fu mu nekk ndax soppe ak fans yi nga xamante ñu ngi safoo musique afro arabe namm nañ ko ay ca ñu dem seet see daa mi naa seet waxe won rek tay ñewon fi ñaar tari set ci ku ñaan Seyda Amina Seck bokku fi xatu jilu jadi mu nek artiste bo xamanteni artiste bu mag la di yëngu ci walu musique afro Arab borom Yassinu Taha tay mom lañ ses fi ñaar ñaatali waye wër nañ ko fi yëpp Habibati ziar naa la maa ngi Habibati di la nuyu tamit di la ziaré yow tamit daal fi ngay làq wa man de fi mom ma ngi fi dal parfois mu jóge fi nak dem fenen Masha allah amna so soo ñu bàyyi nga nduy téléspectateur yi xam ñi ngi stance Elvision Média ahousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammad salallahu taala alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain uh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di nuyu di ziar uh, mbokk El Vision ñi nga xam ne ku nekk uh, yaa ngi toog di seetaan émission bi nga xam ne mooy taaru diine ji di leen jox suñuy loxo di leen ziar di leen tatagal di leen wax ni daal wax dëgg yàlla kontaan bu baax a baax waaye tamit di nuyu suñu wasila ak Seydou Mouhamadul Moustapha si xafisahullah wa ayadahu wa raahu waaw comme ni nga ko waxee waaye ñu tam ñu ngi nuyu ñi nga xamante ni ñooy euh, kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaanal jàmm waaye tamit di ñaanal way dawle yàlla xarale àjjana te si kawam waaye tamit di ziar képp ko xamante ni mbokk euh, yaa ngi safoo El mbokk internet yi waaye mbokk waa bitim ñu ngi leen ziar bu baax xabaar leen ñaanal jàmm sa émission temps bi Seyda Amina seet si tey fas yéene waxtaan ak moom ci lu bari incha allah rabi Seyda maa ngi gis yaa ci wàllu musique afro arab kañ nga dugg ci wàllu musique afro arab ak lan moo ci dugal waaw li ma ci dugal mooy bëgg-bëgg comme nañ ko xamee rek arabisante moom dafay faral di bëgg maanaam lépp lu jëm ci wàllum arab bi donc day gëstu lépp lu ci euh, jëm kanam loolu mooy tax ñu dugg ci loolu mooy bëgg-bëgg bi mooñ ci dugal ñu ci dugg 2003 2003 lañ dugg ci musique arab bi mhm. nga duggee ci wàllu musique afro arabe 2003 man groupe nga njëkk a dugg. waaw man firqatul jilu jadid la ma ñu ko xamee falaa dugg 2003 te foog naa falaa nekk ba léegi nii waaw falaa nekk. <laughs> macha allah firqatul jilu jadid nga nekk depuis ba nga duggee ci wàllu musique afro arabe ba léegi est que am nga sa album bopp wala sa single bopp. non yàlla dogal nag amaguñu album mais orchestre baa ngi doon am ay album te ñu ngi doon participer ci album yi kon donc mën nañu ci album yi la ñu bokk. waaye du nekkal gul ne album boo xam ne Seyda Amina Seck rek moo ko way ba mu jeex boobu amagul waaye yàlla dogal na nag am nañ single am nañ single waaw. single bi nu tudd. single bi Yaasiinu Taha la tudd ñu woy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kan moo bind Yaasiinu Taha bi. Yaasiinu Taaha ki ko bind mooy suñu wajur bu góor di professeur di chaay bu mag di borom xam-xam bu mag aussi di professeur Aïssa Seck ñuy jaar ci di ko nuyu bu baax di ko di ci jaar di nuyu suñu waajur jigéen yi nga xamne ño nek ci kër gi suñu yaay ak suñu tante ak suñu papa yi wa kër gi ñepp di ci jaar di len ziar euh sa papa xam mo la bindal yaasunu taha ba bind yaasu taha be yow da nga da nga am sa air bop wala mu da bind pare jox la air kon dina yomb lol <laughs> su ko bindee jox ma air mais yalla dogal mom mo bind euh, xasida bi waaye man ma def air bi waaw man ma defal sama bop sama lahna après dox dox sama mag yi nek ci orchestre bi nak ñi ma supérieur ñoom ñu vérifier après ñu daal di valider ñu def liggéey bi. Mhm. ka ka depuis kañ nga génnee single bi. single bi maa ngi ko génnee 2007 2017. Mhm. single bi am na clip. waaw am na clip. en général damay dégg ñu ne arabisant yi seen clip bi day yomb. non du bii moom bokk ci <laughs> non non bii bokk ci bii moom wax dëgg yàlla du lu yomb parce que loo xam ne la xalaat nañ ci. te jox ko ay professionnel ñoo xam ne fii artistes yu mag yi ñoom ñoo leen di tourneel clip donc pour bëggoon def lu différent wala pour bëggoon def loo xam dinañ ne ah kon kat lii du affaire nii nii rek jox ko benn gëdd bi jox nañ ko professionnel moom moo def clip bi euh, ñu ci jàddee nuyu de passage wax dëgg yàlla bi yomb waaw. léegi kon damay bàyyi na Yacine Taha bi nga may ñu tuut tuuti rek pour ñu continuer waxtaan incha allah. waaw yow da xam nga ne sama xabibati te ñu lay seetaan tam bëgg naa bu ñu bëggee rek boo bëggee ñu ñu bëgg ñu bëgg leen rek ci yaasina taha yaasina taha wal habibul fardu laysa kamisli yaasina taha yaasina taha yaasina taha Ahmadun wa Muhammadun Ahmadun wa Muhammadun babul qabuli li talibil ghufran wa habibul fardu laysa kamis بشر فتلك مشيئة المنان وهو البشير تواترت بمجيئه كتب السماء toog na boobu bokk na ci yaasin taaha léegi est ce que mën nga am loo ñu firi ci xasida bobu xamanteni ni la sa papa bind waaw xam nga yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku na xam na ni turam la ku na xam na ni taha turam la muhammad sallallahu alaihi wasallam turam la donc moy borom tur yi nga xam ne ni bo ci tuddu lo ci wax muy yew ak mbax ba tax na ci wax ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu gane adina jële fi lëndëm waaye jële fi kàccoor jële fi jikko bu ñaaw jële fi naafeq daal di indi njub te muy siraatal mustaqim mu tënk lépp nag ci alquranul karim ndax yonent bi lu mu wax muy sunna lu mu jëfee muy sunna yonent bi sallallahu alayhi yàlla dénk ko alquran teg ko ci ay loxoom leer gi topp ñu ba tey jii leer gi topp ñu ba tey ji képp koo xam ne ni nekk nga ci mbir yalla dila ci defal tawfiq ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam lako yalla defé koku moy ki nga xamné mom lañu la ñu kañ lañ doon bak ci bir roy bi mu yaatu lol nak doon lu bëri mais buñ ci wax foog naa dinañ dem fi ba fajar bo moytu dañ koy mujjé doon aha wa gis nga eh, Yaasin Taha bi Seyda Amina doon kañ ki nga xamante moy gën gi min def alayhi salatu wassalam ki nga xamante mom mo tax ñu ñu ñaan rek eh, ci barke yonent bi lepp lu yëngatu ko ci yalla waaye Habiba yi dama gis ni yow yëngatuwoo ci wàllu musique afro arabe kese. waaw ñun xam nga eh, yëngatuwuñ ci wàllu musique arabe kese dañuy ay ndonga daara xam nga ndonga daara moom ca daara ja rek lañ koy xamee suñu kilifa dafa ne daara ja dañ fay jànge amee fa xam-xam moo tax mënuñoo nekk ci te donte musique bi njàngale la parce que xasida mag ñi lañuy ñuy jël taalif ko. méthode bi gën a gaaw tey pour nga jàngal xale ci dara mu mokkal ko jaarale ko ci way moo tax musique bi ak daara moo ñu lënkale moom lañ lënkale ba tax na ñi ngi ci wàllu aar bi waaye ñu ngi ci wàllu daara ji di jàngal nempant yu ndaw yi loolu mooy suñu bëgg-bëgg ñun tam moom ñu ciy yëngatu rek boole leen ñoom ñaar. kañ nga daara waaw xam nga euh, daara ji yàlla dafa dogal ak kilib euh, bi ñoom dañu nekk ay seex ñooy samay seex waaw <laughs> parce que clip bi mang ko def wala single bi mang ko def euh, mois de juillet euh, euh, août ma def clip bi septembre octobre ma mo ibi dara ji 2017 wow, kon 2017 danaka sama année wa waaw macha allah kon ñom ñaar ay cheikh lañ motax ma dal li koy defé non rek. wa ñu su defé ñu ci walu firxabe dañu gisoo firxatu ji jadi tok nañ le yag gulen. ba daaw ci di ji leen leen gis ñu tëgg benn concert fële ci institut bu Dakar la moo leen teewoon ci toog ab yàgg boobu. waaw firqatu jiri jadi toogoon na benn moment boo xam ne kenn déggu leen maanaam génnewuñu wuñu woon album mais ci wàllu ay yëngu-yëngu muy tëgg def ay spectacle donte du gannaa concert maanaam ngandu concert yu mag yi nga xam ne euh, firqa bi ci moom doon na ko organiser mais membre orchestre bi ñu ngi doon liggéey toogoon benn moment boo xam ne xëy na defatuñu woon activité. te mooy defatuñu woon concert bu mag c'est parce que kër goo gis dafa am borom kër yàlla dogal na borom kër bi di jàmbaar lool ma ciy jaar di ko nuyu de passage muy tonton Assane Gueye muy kenn koo xam ne ci musique arab dama naan buñ ci amoon ñett nëga ni arab bi naaw na donte nag dépassé na lu baax a baax avancé na jéego yu bëri mais kooku nag yàlla dogaloon mu voyagé woon euh, jël euh, orchestre bi teg ko ci ay loxo yàlla dogal tamit ñu rafetal ñoom tamit euh, li nga xam ne dénk nañ leen ko Euh, di ci soox di ci yëngu di ci yëngu ba borom kër gi ñëwaat bi mu ñëwee ah ñu daal di organiser orchestre bi yëpp daal di tëgg concert bu rëy ci inst islamique le 6 janvier foog naa yaa ngi fa woon a ku ne xam na ni jilul jadid musul nelaw aha la moo taxoon tamit ba ki nga xamante ni mooy seen ménage demoon voyage yéen dégguñu leen moom ñëwaat ñu doon dégg est-ce que yéen yéen ngi doon liggéey ci wala. waaw moom naa la wax nee la orchestre bi ci boppam membre yi ñu ngi fi woon. ñu ngi fi woon mais tëggoon seeni seen i programme bopp. <laughs> non ñu ngi doon tëgg pourtant mais du engage waawaa du woon Djirul Jadid ci boppam moo doon moo doon yëngu mais damay jàpp ni benn nit ci orchestre bu yëngoo orchestre bi yëpp la yëngal. loolu moo taxoon xëy na moom bi mu demee tegoon na ko ci loxo yoo xam ne xëy na loxo yu euh, tegoon na loxo yoo xam loxo yu sell la ñoom ñi ngi yoroon doon doxal liggéey bi ni mu waree. xëy na li desoon rek mooy génnee album wala def ngandum concert comme bi defoon est islamique te xëy na tamit liggéey boo gis day dox ba benn moment yàlla def mu def taxaw. xëy na ci cadre boobu rek la benn stand by bu ndaw amoon te biñ jogaatee ñëpp xam nañ ne firqatu julli jëri jógaat na yëngu naan na. Euh, Seyda Amina noo gisee ci wàllu musique afro arabe bi yëngu démarche yi dem concert dug ñëw 2 heures du matin répétition yi et tout nan nga koy dundee ak sa famille man nag moom damay wax alhamdulilah man yàlla def ma boole ak entourage boo xam ne ma ciy jaar di nuyu sama borom kër euh, moom a njëkk comprendre après samay waajur tamit comprendre ma. xam nañ bu baax li ma bëgg jàppale nañ ma ci bu baax a baax comprendre ma ci bu baax a baax nag xam ne aussi jël nañ seen njaboot wala jël nañ seen soxna teg ko ci loxo yu wóor ndaxte loxo yiñ lay teg ñoom ñoom ñoom ñoo lay jël si yóbbu man oto bi day gaare fii ci suuf ma wàcc dugg ñu dem bu ñu paree concert fii lañ may wàccee waat taxaw ba ma yëg taxaw ci balcon bi ne leen accident ñuy doog def kon xam nga kooku la nga ci loxo teg nga ko ci loxo yu wóor ba tax na metti na boo nekkee jigéen bëgg a gérer sa wàllu kër bëgg a sa wàllu daara bëgg a gérer sa wàllu orchestre donc yombul mais nag ndimbalu yàlla moo la ci jàppale ak entourage bu la comprendre te man sama entourage yëpp dañ ma comprendre ba tax na mosuma ci benn problème wax dëgg yàlla macha allah. Euh, est-ce que Seyda yaa ngi préparé beneen single bokk la yaa suñu taaxaa bi. waaw ñu ngi préparé beneen single boo xam ne bokkut ak yaa suñu taaxaa bi wala sax ñu ne xaw nañ pare sax beneen single boo xam ne bokkut ak yaa suñu taaxaa bi. single bi moom wa xam nga suñu góor gu tedd gi radiallahu taala anhu maam si ahmed tidiane si al maktoum foog naa mu doon géej koo xam ne li mu bind buñ ko toppee rek enseignement am teg suñu tànk rek te di ko suivre foog naa ne réer du am alhamdulilah bi nga xamee ne yàlla boole nañu ci njaboot yi nga xam ne nañ toog ci suufu tantam di taataan ay waxtaanam mu taalif benn xasida euh, di fa ilayka yab na muhammadin naadaanii yàlla dogal euh, ñu def ko préparé ko muy single boo xam ne xëy na mooy ñëw topp si ci Yaasiinu Taaha incha allah te du yàgg. waa Elvision ñooy am nag ñooy am xoolal ñooy <laughs> xam nga li ma wax est ñoo koy am direct instant yi dañu ci tuuti. Elvision Média de xam nga dafa am sama xabibat yi donc mun na am ni moom xam naa mooy kii njëkk a dégg kii ah, ki koy njëkk a am incha allah. هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائك basatu ilaika kufahum. bitafani xamna <laughs> lolou mo delu ci fa ilaika yabna muhammadin ah, len rek ci ben partie bu ndaw bu ñu jël ci bir rek xamna def nañ ko ci anam bu dal bo xamne buñ koy way sax suñu xol da fay toy yalla xamna ko morso bi mom bi ñi dugg jo jour bi may def enregistrement dernière bi euh xol bu toy lañ ko defé ma sha Allah wallahi ya jékki-jékki jël sa jël fa ilayka yad na muhammadin bi wala wa firxa bi ñolo la ko waaw xam nga firxatu julu jadid lepp lo fa gis partage la euh dama wacc un jour école dem fi may lo sama yenn album xalé yi tonton Assane gey wo ma téléphone mi ngi tombel presque 40e jour mam Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum radiallahu taala anhu bima woy ni ma da nga war dem studio manako aha lan mo xew mu ni ma da ngay woy fa ilayka dañ ko war a dugal enregistré ko ma ne ko aha mu ne waaw ma ne ko incha allah ma ne ko tons dañu ngi jublu quarantième jour maam cher mun ma raison pour laquelle après nag fekk na boobu juste Yacine Taha bi génn na di commencé def promotion am te eggagul woon fenn mais comme occasion bu ñu amoon la ñu daal di koy exploité ma daal di pare dem mu defal ma euh, mu defal ma euh, tegal ma programme bi ni mu demee ñu ànd daal dem studio. ñu anda dem studio def enregistrement bi fa tabarakallah yàlla def ci macha allah tamit mu nekk loo xam ne lu ñu sant suñu biir xol la wallaay lu ñu sant suñu biir xol la bis boo ko déggee di nga xam way bi dañ ko way à cœur way dañ ko way xol mhm. macha allah gis ngeen kon mu nekk single boo xamante ne moom lay préparé mu nekk fay lay kayat na mouhamadi naadaani nekk single boo xamante ne seyda amina sek moo koy préparé ànd ceeg waa firxatul jiilu jadi euh, su ko defee ñu ñëw ci wàllu musique afro rap bi seyda amina loo gisee musique afro rap bi jamono toll musique afro arabisa la macha allah dafa am yokkute bu baax euh, li tax ñu wax ko moy ne fi mu nekk tay ak fi mu nekkon demb diamétralement opposé ndaxte bo xolé année yi passé ci ginaaw ben organe nga fi dégg wala ben raja wala ñaar bu bëree ba bëri ñoom ñoo fi musique afro arabe El Vision Média mi ngi ni ñëw na Mourchid TV mi ngi ci def wàllam rajo yi léegi foo jàpp dinga dégg ñuy wax wala ñuy teg musique arabe soit ñu invité orchestre wala ñu teg benn artiste euh, firqa yi gën na bëri artistes yi gën nañ bëri musiciens yi gën nañ bëri macha allah loolu yokkute la waaw ñu ngi ciy sant yàlla baax alhamdulilah. naa Amina nan la mel yeneen artistes yi. artistes yi samay xarit lañ yii sala xam nga la moo tax man dama yàgg a sopp firqa yi fi nekk dama yàgg a bëgg. artistes yi nga xam ne ñoo fi nekk parce que man mun naa ni jàpp naa ni ci génération bi fi mujj ci laa bokk doon te xëy na bi ma bokkee orchestre beeg léegi yàgg na mais bi ñu gën a nekk xale toog di suivre fu orchestre tëgg ñun dañu doon dem jënd suñu billet dem toog seetaan bu ñuy woy ñuy tàccu rek nag di ci bëggee ba ba macha allah waaw moo tax orchestre yi yëpp dañu am ak ñoom jàmm artistes yëpp samay xarit lañ sopp naa leen lool ba nga xam ne ku ma ci gis daal dama lay jël taf la sama kaw macha allah nee na sopp na leen ba fu mu ne gis da leen taf ci eh, seen si eh, xolom mu nekk eh, macha allah lu kii loo xamante ni ñun ñi nga xamante ñooy entour musique afro arabe bi war nañoo jàppalante dimbalante ba lépp luñ bëgg ci millier bi nga xamante ni mooy musique afro arabe mu avancé ca kanam incha allah rabi xaybati damay gis ni damay gis ni année yi passé année yi ñuy génn ni concert yi bari nañ ak programme te gis nañu artistes yi ñu ngi ñëw Euh, def seen euh, li nga xamante ne mooy seen devoir en tant que seen morom artiste da ngay gis koo xamante day woote comme exemple Abdou Aziz ba mu wootee fële ci Sorano yégal na artistes yi ñoom ñëpp ñu kaw ku nekk génnee sa air way yow loo gisee loolu ci jamono ji. di ko bu baax a baax loolu dafay nekk loo xam ne mooy gën a rataxalaat diggante artistes yi xam ki nga am sa programme woo mu ñëw kooku yëg na la te na la mën na am bu absenté woon place ba mu toog dina vide. kon bu déplacé woo ku ne xam ne milieu yi ñu koy defee parfois dafay espace dafay soriyantoo nga def Sorano nit ki jóge ba Yëmbal nit ki jóge ba Géejawaay nit ki jóge ba Kër Massar ki jóge ba Parcelles fu nekk ku ne ku jógee fa def transport paas sañse lu rafet ñëw toogal la yéeg sa kaw seen wayal la loolu amul lu dul luñ rafet rafetlu macha allah mu ne lekk lu rafet loo xam ne ni ko firqatu jilu jadi di defee noonu la ko yeneen firqa yi di defee. mu nekk loo xam ne rattaxal diggante artistes yi la euh, boolewoo bu ñu boolewoo wane la ne ñun benn bopp lañ wane ni ñun amuñu doole noonu waaw bu ñu defee nii ku ñëw jaar jàll waaye bu ñu defee nii daa àndandoo donc loolu mbooloo mooy doole aljamaatu rahma waaw loolu moo ci nekk rek. sama dernière question mooy la mot groupe bi nga tuddee ko fi xatu jiilu yi waaw firqatu ji lu jadid nag xam naa bu fi tonton Assane Gueye nekkoon mu gën a mun a yaatu xëy na ñoom comme ba ñuy toog di créer tour groupe bi ñun fekkoon nañu ñu nga ca école yay jàng wala boo ko <laughs> waaw ba tax na firqatu ji lu boo ko déggee muy la nouvelle génération de Dakar ma dégg ci histoire ji lu ne am na ay membres yoo xam ne ñu ngi bokkoon Dakar ville Dakar ville yenn membres yu fa nekkoon toog lu yàgg ñii sëyi nañ ñii tukki nañ maanaam groupe bi demoon na ba nekkatul ñu boolewaat daal di am ñenn ñu ci jëlaat taxawal kon génération démb la ak génération tey ñoom la boole de leen nouvelle génération maanaam ñi yore xalaat bi ak ñi koy doxal waaw muy la nouvelle génération la Dakar di firqatu julli jadid bi Dakar. xay ba tey sañ nga nag de. danga maa nax. waaw non xam nga yow ma dugg sama jàllale bii rek def yëf sëñ Cheikh. xam nga ñun moom. waaw rafet na macha allah moo tax dañ koy dañ koy rafetlu nice na te lalal naa la ci waaye ma xam nga man yii daanaka daf may xam nga man nii laa gën a nekkee à l'aise man damay dugg ci jàllaa bi rek fërëx rëx la dem mais yii moom su ma ci nekkee daf may daal di xaw a conditionné ah macha allah comme daal euh, sëriñ bee fi jaar xanaa ñu daal di kii rek ak sama Khadija Fashion ni nga xam ne moo ma maquillé waaw mi ngi noonu moom moom dafa gëm loolu moom moo jaar ci kanam gi dafa ko mu xaw a taaru nii. sama chéri moom loo koy wax naa ko de. <laughs> waaw noo xam nga namu nga ko depuis yàgg na ba léegi xam nga ba léegi gisoo ko ah ma koy wax ni rek ni ko namu nañ ko te xale yi tamit namu nañ ko waaw namu nañ ko ñoom Serigne Safa namu nañ ko ak bébé Ndumbe namu nañ ko wax dëgg yàlla <laughs> waaw ba tey tamit ñun namu nañ la di wax dëgg yàlla boo ñëwee tamit yàqul dara da koy def <laughs> macha allah gis ngeen tey fii si Niary Tally ñu àndoon ak Seyda Amina Seck sa émission taaru diine ji su ko defee rek ñu bàyyi ko mu joxe dernier moom ak tàggoo bu dul tàggoo ba à la prochaine incha allah di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal waa Elvision Média di ñaanal yàlla kilifa gi ki ci kaw ba ki gën a suufee ñëpp yàlla sàmm leen aar leen yàlla barke liggéey bi yow tamit wax dëgg yàlla di la wax ni la yéene nañ la li bu baax a baax parce que yàgg na xamante nañ bu baax nga yàgg bëgg métier bi yàgg ci góorgóorlu yàgg ci xoslu macha allah yàlla na ci yàlla defal barke boo xam ne dinga dem bañ lay dégg bépp animatrice ki gën a mag fañ koy dégg yàlla nañ la dégg. kontaan nañ baaxa baax di nuyu tamit sama mbokk bi wax dëgg yàlla Balla di ko ziar baaxa baax di rafetlu seen liggéey di wax rek ne kontaan nañ wax dëgg yàlla ci dalal bi nga ñu dalal bég nañ macha allah. yal na yàlla kontaan gis ngeen saa su nii rek lañ koy defee chaque jour ak fois taaru diine ji di fël tey nañ ñëw fii si ñaatal si si kibnaa Seyda Amina sek borom yaa suñu taxawaay bokk ci firxatu jilu jari ñuy ziar waa Amas yëpp ak waa Carrefour des animateurs ñoom ñëpp maa leen ziar ko ci mel Seyda Fatima sar Mami Ndiaye bàyyi ma kenn Seyda Lému ak président Abdou Aziz bi nga xamante ni maam Khalifa moo gën a ziar bu baax a baax waaye tamit ziar képp koo xamante ni yaa ngi safoo ko defee saa su ne di ziar sama caméraman bi nga àndal baal la waaxiru daawana an alhamdulilahi alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu El Vision Médias